Cheikh Sidi Ahmed Tijani Qaddasallahu sirra until 1208 20, uh, Hijri of course uh, 1208 when Sheikh Tijani did not have an imam for him anymore. Okay. خرج سيدي أحمد تجاني من عين ماضي أول مرة سنة 1757 وسنه 20 سنة وخرج وهو مفتي طبعا مفتي و مدرس لاستاذ للشريعه وسيدنا الشيخ ndo yaltata ayno maadi omo yaha tuubakayaare duɓi nawgas e goo walla nawgas taw o janngi gannde mufti mufti woni mbaawowo ñaawde he laabi goɗɗi hay wona laawol ma taw aɗa ƴelliti heen taw aɗa jogii heen sahih aɗa anndi saqim aɗa anndi sahih cheikh tidiane heɓino on martaba law cheikh tidiane um, left Fez radiallahu ta'ala anhu when he was 20 to 21, left Ain Madi to Fez as a mufti and as a uh, professor in Sharia. ذهب وسنه عشرون سنة ليتعلم يزداد علما ويلتقي بالشيوخ وأقطاب هناك والمرة الأخيرة سوف نراها في الأخير ذهب مهاجرا الأولى ذهب لطلب العلم ولكن الثانية ذهب مهاجرا بحيث أن الأتراك لا يقومون في مسبون وبالتالي فهرب مع أحبابه إلى فاس ولسيدنا شيخه فاس لا بديدي لا ولغت نقول nawno bugtoon ko ɓeyda ɓeydaade idde anndude ɓe maana comme no aya ko wawirino fa siiru fil ardi fanduru kayfa kaani koye on misal o yahatno o andi ko yiɗno ko andude laawol ɗimmol ngol noon o yii eɓe mbaɗa ɗo faas to ko moƴƴaani ɓernde nde añi ɗum o hij o waɗi hijra sabu yiide ko boni ko o fayi faas um, Here he is pointing that Sheikh Tijani, this was the first time he went to Fez. Um, and the second or the last time he's going to go to stay in Fez, is going to be when he's going to migrate from Abu Shamroon. And you know, he's uh, going to visit in between, but the last time he's going to stay forever and for the rest of his life, it will be when he migrated from Abu Shamroon after the Fatah and after the years and after the problems that happened there. Mm -hmm. min seydina cheikh artinde laawol ɗimmol o yehi wuro ngo o haali ɗo jooni hakkunde mum e ayne madi ko e o yo ari e nokkel wiye abyasid cheikh o arti toon ɗon waɗɗaane nokku biteɗo abi samagon ɗo heɓno fathul coubra ɗo الشرع فبدأت رحلته الطويلة التي دامت 41 سنة وفي بدون سيدنا الشيخ أمي ودي رحلة ممجاجو بمعنى رحلة مغنداو وودي دم رحلة جودو معنى دنغال قدنغال هاكو كيوي كوهي فو كيوي هين Here he's clarifying that um, Sheikh Tijani, when he came to Fez, he went back to Algeria mm -hmm. passing through Abiyat Sidi Sheikh, which is not far from Sidi Abu Shamul, and uh, he will be there for five years and he will live for Hajj, and then uh, that's how he started his journey, which he says will uh, cost him 41 years of his life.